asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu àdduna gi yëpp di baalu ñëpp àq te di baal ñëpp àq vidéo bi nag tax ma def ko mooy dañu am suñu benn xarit wa suñu frère bu nekk ci ay talof-talof muy Djidjack juuf donc ñu doon sàkku rek wax dëgg yàlla si justice bi nuñ ko mayee liberté provisoire parce que xam nañ ne jijak fii la nekk lépp fii la munta dem fenn waaw dafa yor njaboot yor fi soxna yor fi doom ay waajuram nekk fi ba tax na ñu sàkku si justice bi ko mën a libéralee waaw nañ ko libéré mu dellu si njabootam maa ngi dégg am ñi def sax vidéo naan mbëri yeeg wala euh, monde euh, ñu nekk si wàllu culturel bi war nañ def ay vidéo dama jàpp ne ci jag moom waxuma la ñooñu kese rek waaye képp ku nekk fii ci réew mi ak secteur boo mënti nekk dëgg yàlla ci jag yàgg na laa taxaw guddeel na la bëccëkal na la naajal na la jël na ay moyam kopparam ñaqam doolem lépp def ko si yow loolu moom day loo xam ne Sénégal gi yëpp fii ñi ko xam mun nañ ko ko seedal ñi ko xamulit ñu bari mun nañ dégg nañ ci loolu ndaxte tey bu nekkee comme wàllu visa yiñ ñu tudd nii tey ñi war a dem ay Bercy ñi war a dem ay Zénith ñu bëri tey dañ doon ñëw soxla xam-xamam xalaatam ci nan ngay monter dossier si nan ngay def mu dimbale la ci man mii ni tout récemment boole naa ko ak ay nit ñoo xam ne dañoo soxloon rendez-vous rendez-vous yi dëgg trop te Jijak da ciy jël xaw ma na sababu rendez-vous yi dañ koy fay moo dem def rendez-vous yi ñu fay par orange mën a lépp te monnaie boo xam ne ñu ngi fay xaw ma treize mille poussière bi ñëwee pour delloo ko c'était quatre personnes dafa lank ne du ko laal te yàgg na dimbalee nit ko param di ciy dem euh, ba tax na rek waaw ñuy ñaan justice bi rek nañ oyofal yëf yi may ko liberté provisoire continuer seen enquête. Euh, bu jaree it ñu demande caution sax dañ demander caution bu ko ji ak yor woon sax ñun ay xaritam euh, pare nañ luñ ñu munti laaj wax dëgg yàlla ñu def ko loolu laa moom loo xam ne maa ngi koy lancer message naan la ji yàq yàlla na la yàlla dimbale yàlla na la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàllu te ñu ngi koy ñaan si barkeb Sëñ Tuubaa bi ñu gëm barkeb Sëñ Saaliu Mbakke waaye di wax njabootam muy soxnaam muy doom metti na waaye nañ muñ rek. incha allah yëf yi jeex na ba noppi léegi ñu ree incha allah jërëjëf.